nuyu naa leen bu baax fanu gudd ànd ak wér sutura ak barke jàmmi àdduna ak àllaaxira yàlla nañu ko yàlla boole defal. xaaju discours am dama ci ànd ak moom wax dëgg yàlla dama ci bokk ak moom gis-gis waaye nag beneen xaaj bi ànduma ceeg moom gis-gis waxuma nag limu wax du noonu déedéet waxuma li mu wax dafa juum déedéet mais dama ne bokkuma ceeg moom gis-gis te am naa ci droit. li mu résumé yépp soo ko dégloo fi mu lay delloo mooy te wax na ko yàlla bi mu la defee doomu aadama bi nga juddoo bi nga juddoo rek ci nga war a commencé xam ni yaa ngi ci ay coono ak fitna coono yaa ngi tàmbalee ci bi nga juddoo kon nga war a affronter disque euh, jafe-jafe yi difficulté yi kon coono yak fitna yaag problème ya ma nga tàmbalee ci bi nga juddoo kon nag boo nekkee di ko dund koy dund simplement c'est parce que dafa bokk ci sa dund léegi nag li nga xam ne tey moom moo waral mu def sortem muy situation wu réew mi mu wax ni c'est normal parce que ñun ñoo bëgg def révolution indi na dëkk yu bari pour wax ni dëkk sàngam def na ko dix ans dëkk sàngam def na ko vingt ans dëkk sàngam xeex na ko trente ans pour réussir ko te ñun xëy na douze ans lañ ko defagum wala boog cinq ans yu mujj yi wala huit ans yu mujj yi lañ ko defagum lan la ñu gënee yeneen réew yi ba tax ñun ñu war ko dund un peu de temps war ko mën a amee niñ ko bëggee te ñeneen ñi ëppale leen pas-pas ëppale wuñ leen taxawaay ñenn ñi def ko.

nan la koy dundee instant bi ci lan la nekk fu muy waaj a dem lan lay waaj a def lu bëree bëri ñu ngi koy laajte et pourtant ñi ko doon laajte kenn ku ci ne ña ca am seeni magasin dañoo xëy tijji ko toog ci ba pare nag di xaar yow nan nga war a def ñi ko doon laajte kenn ku ci ne xëy na dem ci liggéeyam ba pare naan diw wuu diw de gisuma ko waaye xam naa ni nan la war a def bu fekkee yaa muy bëgg a dégg. nga demaat aussi ci terrain bi ay sénégalais doo fa fekk ay ay ay allemand doo fa fekk ay américain doo fekk ay français doo fekk ay camerounais déedéet ay sénégalais ci terrain bi ñoo lay romb ak seen tànk di la xool bëtu yéen da ngeen am jot di la romb ak seeni oto di xool bëtu yéen da ngeen am jot ay sénégalais comme yow génération yi bépp nag. ñooy tijj seeni magasin toog ci di la ni ñun amuñu jot mi ngeen am ñun dañuy xëy bu leen yàkkal suñu xëy dañuy liggéey ñi yor seen oto di la wan ni ñun attendre bu leen ñu yàkkal suñu suñu liggéey dañuy liggéey ay sénégalais comme ñun ñoo koy def am ci sax ñoo xam ni duñu yem ci xoole ko mais finalement dañuy yëkkate seen kàddu ne la gars yi yéen yéen saa yi ngeen def nii bu ngeen ci gaañoo yéen a ciy perte rek bu ñu leen ci tëjee yéen a ciy rey seen temps rek bu ngeen ci deewee yéen a perte rek dégg nga te ba pare li gën a garaaw mooy li ëpp ci sénégalais yi boobu position lañ amee ñii ña nga ca car rapide di la romb ñii ñi ngi ci tataay di la romb ñii ñi ngi ci kenn ku ne si ñoom soo waxee moom mu ni la li ngeen nekk dëgg la li waa ji di def du yoon mais léegi lan mooy mën a wane que ñoom li ñu wax gëm nañ ko du nuñ ko defee de. kon effectivement sénégalais yi am nañ ci part de responsabilité te ci tënk rek li gën a gàtt mooy li ngay xaar ci leader yi pour ñu def ko amul kenn ci leader yi ku mën a def lu dab li Ousmane ko def te Ousmane ko tey fii la taxawoon même bi mu demee ba xam ni sax fekk na pourtant bi muy laaj xam na sénégalais yi de bi muy laaj xam na fan la ñu toll te xam na ci liñ jëm. mais dafa am lu ci jublu tax mu taxaw laaj di laaj est-ce que pare nañu lu ko Sénégalais yi tontu pare nañ lañ ko tontu ca Kër Massar mu demaat ACAPES laaj est-ce que pare nañu pour confirmer moom boo fekk na même bi muy laaj même bu dee Sénégalais yi pare wuñ moom pare na mais tey jii tey ci kàddoom gu mujj li mu wax ñëpp ko dégg te moom la ñu war a fàttali tey. te mooy dafa wax ni bu fekkee sénégalais yi mën nañu nangu seetaan ba li waa ji bëgg mu te mooy xañ ko mu bokk ca élection yi ñu seetaan ba waa ji def ko moom da koy muñ loo yàlla te xam ne loolu la yàlla tudd ci moom kon ma bëgg la wax ne la lépp looy xaar pour leader yi def ko mënuñu def lu dab li Ousmane Sonko def te lenn rek la soxla woon moom Ousmane Sonko lenn rek la soxla woon

zéro action moy am gaay yi dootoo gis ken léegi nag est-ce que yow mi ci dess rek yow yaay meuna def xex bi non doo ko mën et pourtant yow li ngay xex risque ci nek yëpp xam nga ko mais li ngay xex yow ñepp ko bok yow du sa jëmm tax nga diko def mais pour teunk rek pour résumer pour wax ni maître sénégalais am nañ ci part de responsabilité fofu la d'accordul ak yow. peut-être nag xëy na xëy na xëy na xëy na xam nga ko ni man xëy na danga koy waxee noonu parce que sa kàddu bëggoo wax lii ma wax mu am nu mu def pas-pasu sénégalais yi ci sama njortu bu rafet xëy na damay jàppale loolu nga ci jublu mais amaana yaa ma gën a xam ni sénégalais yi def nañu xëy na bu dee loolu la je suis d'accord ñaareelu pàcc bi mooy li nga xam ne tey moom la ñu dund démb bopp ba geen man su ma gisee ku taxaw ni dara bett na ko ci dina ma jaaxal fan la ko teg dara bettewu ci ah man de dara bettu ma ci te jàpp naa ni ñi ëpp tamit ci sénégalais yi ci ñi nga xam ni tey réew mi soxal na leen ñu àndoon ak mbir mi di ci dox di ci wax ngir seen réew dara bettu leen ci te li Ousmane Sonko soxla woon rek ñun loolu lañ soxla woon te mooy defar réew mi mais li Ousmane sonk soxla it ñun loolu lañ soxla woon te mooy réew mi digguñu xam dëgg-dëgg li xew lan la jug àndante kook ñun mais réew mi dañu lànk réew mi dañu lànk et la preuve que le même moment bi nga xam ni ci lañu war a nekk pour wane ni conseil constitutionnel moo maye droit bi ñuy def que ñu génn campagne parce que candidat yi vingt yi moo leen validé sénégalais yi war a taxaw lijjanti loolu te li ma la wax lépp ma wax la ko ci au même moment preuve bi gën a ndaw rek mooy làmb ji ñu ngi ko doon tëgg te làmb ja nga fees ak i jeune ci as yëpp làmb instant làmb jaa ngi daw ni ma ko limee ci wax ni ñii xëy nañu ci seeni place tijji ko ñi xëy nañ ci seeni oto ñii xëy nañu seen bërëbu liggéeyukaay ñii di la romb di la ko xoole bët ñii di la ko wax au même moment pour nga xam ne tey sénégalais yi def nañu ña nga ca làmb ja fes fa dell kon kooku man du ma nangu ko taxaw ni moom deful def na dafa def kon nag tey patriotes yi ñi nga xam ni tey ñoom ñoo engagé woon ci combat bi wax nga ko sa biir wax nga ni faw mu am ay éléments déclencheur faw mu am ñu jiite mbir mi parce que am na ñoo xam bëgg nañu mais seen fit ñemewul am na ñoo ne bëgg nañu mais seen xam-xam màccul ci loolu am na ñoo xam ay ñoom problème waxuma la nag ñu gis wala ay gis non ñoom fi ñu fi ñu taxaw ñu kon dëgg la dafa am ñu leen war a encadrer mooy ñi ko xam ñi ko mën mais nag loolu ñooñu buñ ko dee def askan bi moo tax ñu di ko def askan bi buñ defoon li ñu war a def yépp wax dëgg yàlla duñ ci sax arrêté nit wax ma nit di ci gaañu wala ñu ci rey nit man li ma gëm mooy lu ne jaar na fi waa ji taxaw fi def ko fi te waruñu woon bàyyi mu jàll mais tout sëf bi mu taxawee dakk élection yi puusu ko de da ko fee jële jële fi élection yi ni dootul am la vingt cinq man dama jàppoon ni foofu balaa kat doom di daanu Sénégalais yëpp génn te wax dëgg yàlla bu loolu amandoo woon dëgg la ñun ñoo ko dénk liñ ko dénk moom mu jël ko utiliser ko pour jàkkaarloog ñun te mooy police, gendarmerie, bon, GIGN et tout. mais il suffit que askan bi yëpp génnandoo woon taxaw ci mbedd yi police ak gendarmerie boobu duñ def benn action te li ñu bëgg day faju ci lu yomb ci lu gaaw ci benn bés waa ji daf ñu yabal man li ma mënu woon gëm mooy Macky Sall dina daaneel ñu teg ci trente minutes te senegal yëpp génnuñu ci mbedd bi man mënu ma woon gëm loolu wax dëgg yàlla man mënu woon gëm ni dina daaneel kàddoom te lu dul dinañ ci teg 30 minutes fekk sénégalais yëpp fees ci mbeddu ndakaaru yi mais sénégalais yëpp fi ñu toog lañu toog mais attends kon nag wax dëgg yàlla askan bi sonnagul askan bi amagul métit amagul naqar ci li waaji di def wax dëgg yàlla askan bi métteegu ko muñu kaayam des na sonnagul amagul jafe-jafe man loolu laa mën a gëm ñetteelu pàcc bi nag mu des fan la ñu jëm loolu nag mooy wax ci dëgg-dëgg fi ji fiñ jëm moom li ci gën a néew dèjà li ci gën a néew mooy fii ñu taxaw di wax ku ne xam na ni économie moo yor réew te fekkoon na mu taxaw. fekkoon na mu taxaw euh, rawatina nak bi nga xamé ni le deuxième président képp ko ni investir képp ko da ngay partenariat mais képp kuy négocier contrat kon pour rek économie bi yépp kon day taxaw lan lañu wara dund ci Dundu, faju jang ndox ak courant loolu moom incha allah rabbi jàpp naa ni xaw nga bëgg maa dégg xawma ma bëggoo maa dégg mais xam nga fiñ ci jëm lii ma la wax nii fekkagul moom waa ji am benn yéene de même bu amee yéene bu amul yéene même bu neutre économie bi moom da koy yëg day taxaw taxawoon na mais day gën a pur parce que léegi amatuñ président à partir du 2 avril amatuñ président. kon économie bi moom ci pe moom ci boppam moom dina la wan moom ana moom fan la féete moom lan lañ ci war a dund lool duma wax ni bay way na mbuus de du ko wax mais ki nga xam ni moom laa gëm ni moom moo mën a régler problème bi kooku laa gis mu jëf ma dégg ko mu wax ma xam ni kooku pareegul te mooy askan bi foofu lay sukkandiku wax ni mbir mi sotteegul déjà jàppal nañ ñu euh, quinze décembre quinze décembre boobu man li ma gëm mooy sarax la ci kan kañ lañ war a dem élection man li ma gëm tey mooy fii ba deux mille trente cinq deux mille cinq man gëw ma ni dinañ fi dem élection man gëw ma ko. ni ni, nii mais dama 2035. man ak fi dem élection te waa ji ci droit li tax ci droit nangul ko droit def ko waxuma am ci droit que lu ko yoon mais am ci droit ci imposer ñun ñu nangu ko mu teg suñu gis ay benn évoqué mais kilifa yi mu tàggu woon noonu kilifa yi nga xam ne ñoom la toogoon tàggu leen ni leen bii mooy sama dernière teew ci xew-xew sàngam tàggoo kilifa yooyu lay dégg am ay sénégalais yu leen woo ci mbir yi wala mel ni di leen tudd ci mbir yi wala doon leen ci yaakaar baa doon leen ci xaar yu mel noonu li gën a tuuti rek laa leen di wax ci loolu kilifa yooyu xam nga ñoom la toogaloon tàggoo ñëpp di ko dégg. ci kanamu Sénégal yëpp ñu tàggoo bi mooy sama mujjee teew ci cérémonie tel ci bës xew-xewu tel mooy ci sama mujjee teew maa ngi dem pare naa ci diw laa fi teg pour mu wutu en tant que man sama candidat kilifa yooyu noonu xam nga ñoom ñooy ñi ngeen di interpeller pour wax ne lan moo tax waxuñu est-ce que nangam est-ce que sàngam kilifa yooyu kay xanaa bu doon dañuy wax dinañ wax am nañ lu ñu wax ñoom loo xam ni waa ji moo leen may ñu wax ko xam nga loolu mooy lan. yaa ñu tàgg woon wax ni prochain événement ci suñuy événement du la fi fekk parce que bii mooy sa dernier événement lan moo tax nga toogaat bëgg mu fekk la fi parce que tey six mois lañ doon wax faf waa ji dem un an presque un an mais ñoom kon amoon nañ buntu wax ni ko bi ngay ñëw kat ci suñu xew-xew yi mujj yi da nga ñoo tàgg woon ni dee naa jeex na parce que matal nga dangay dem le 2 avril te lii nga def nii kat mooy da ngay ñëwaat. non du mën a jàll waxuñu ko ko dangay ngay événement yooyu agsi ñu soog ko ko wax déedéet événement yooyu bu agsee kilifa yooyu ñooy toogaat ak moom te doo dégg ñu tudd loolu doo dégg ñu taas loolu doo dégg ñu wax ci te ñooy toogaat santaat ko gërëm ko ñaanal ko yàlla mi ngi suñu kanam kon nag jooju wax moom foofu laa ci yem loolu moom nekkul suñu gannaaw suñu kanam la nekk duñu ci wax kon mooy ànd nañ ci yow la bet yow la jaaxal yow la metti mais ñoom man gëwma loolu pour ne pas citer individuellement des personnes damay regrouper man juróomi kuréel ci dëkk bi laa gëm ni tey bu doon ñoom te ñëpp dañoo mel na ñoom li maître wax dina am solo te mooy maintenir gu ñu maintenir campagne te mooy lii ñu teg démb ensemble suñu yoon nekku ci dañuy campagne par force te day jàll su boobaa juróomi kuréel laa xam ne bu ñu meloon na ñoom day jàll loolay am pour ne pas citer individuellement ay benn nit benn nit ndax kon da juum mais juróomi kuréel moom mën naa ko tudd ci li ma gëm nag kuréel bi ci jiitu mooy ñi nga xam ni ñoom ñoo ne ci kaso yi ñennat ci ñoom nekk ci bàmmeel yi bu doon type de sénégalais boobu moom moo fi maase nekk ci dix-huit millions yi maître kon li ngay wax ni moom lañu ñu war a def te muy continuer campagne bi parce que ñoo am légalité day am ñi ne ci kaso yi sénégalais yooyu type de sénégalais boobu ñooñu dañu yor dret pur sang li ñu dëgg nag neexul dégg ñaareelu groupe bi mooy waa Casamance. wax dëgg yàlla joolaay ñoom de bi mbir mi tàmbalee ba tey lépp lu ciy seen wàll bu agsee ci ñoom gérer nañ ko ba mat sëkk pire ay gor moo xam ànd nga ceeg man moo xam àndoo ceeg man am nga ci droit mais man loolu laa gëm te bu fekkoon lépp ci askan wi dereetu joolaa yi lañu yor dañoo mel na waa Casamance kon li ñu bëgg day jàll te nous dinañ maintenir campagne par force élection le 25 février 2024. mille vingt quatre man groupe groupe bi les sénégalais de l'extérieur des problèmes. amuñu problème problèmes. amuñu problème problèmes problème courant ni problème ndox. amuñu problème mu yoon ñu teg ko yemale ci ñëpp am nañu lu ñu dunde am nañu lu ñu fajoo waxuma sax dara mais ñoom seeni njaboot ya fa juddoo rek ka fa am doom mu juddu tay tay tay doon liir bu tooy xepp amagul cinq minutes kooku dundam moo gën man mi dund ci Sénégal gi trente moom moo gën dund parce que lu mu bon bon bon moom tey justice la ñuy jëflanteek moom yoon la ñuy jëflanteek moom ay loi la ñuy jëflanteeg moom ay ay charte la ñuy jëflanteeg moom jox ko àqam ak yelleefam et diaspora boobu tey mboolem fuñ ci mës a toll la cay seen wàll defee nañ ko defin woo xam ne day leer nañ muy troisième groupe bi nga xam ni gëm naa ni traite lañu yor pur sang dañoo am gëm-gëm man loolu laa gëm ñeenteelu groupe bi di waa pur waa pur aluin Mamadou Dia bu waa Pire sëriñ Moustapha Sy njabootam man day ñoom wax deug yalla li li ñu soxla ci mbir mi ñoom dañ ko am moy pas-pas ak yitte ak gëm-gëm wa Pire zéro tricherie waaw waaw la déedéet déedéet la waxuma nag ngay tudd ay yeneen mbir yoo bokkul ak ñoom gis-gis loolu c'est la vie àdduna la mais li ñu soxla type de sénégalais bi ñu soxla nga xam ne bu ñu ko amoon bu ñu ëppoon ci askan bi ñu régler suñu problème ak waa ji type de sénégalais boobu ci quatrième groupe bi nga xam ne gis naa ni tey ci réew mi ñoom ñoo yor dayo yooyu jikko bi gëm-gëm bi pas-pas bi ak deret ju baax jooju waa pur sama gëm-gëm la man loolu laa gis muy ñeenteelu groupe bi juróomeelu groupe bi tey jii tey réew mi ku fi doonoon chrétien di nga siggi muy waa jàngu bi pourtant nag ñun ñooy quatre vingt quinze pour cent yi la wax cinq pour cent yi tey osé nañu taxaw ni mag yi li nga def nii du yoon ànduñu ci seen kilifa génn wax ko ñëpp dégg ko moom da waxul ci suuf dafa wax ci kaw waxul ci suuf ci bu ko neexee. bu fekkee tey askan bi ñoo soxla mu wax ci suuf bu dee waa ji moo soxla mu wax ci kaw moom bu soxlaa wax ci suuf su dee waa moo soxla euh, mu wax ci suuf bu dee askan bi ñoo soxla mu wax ci kaw non non inversé wu ko bi jël responsabilité jotee dafa taxaw wax ni lii àndu ci d'accord ci lii du yoon te mi ngi àndanteek askan bi réew mi tey képp ku fi doon chrétien am nga sakk siggi nga képp ku fi bokk ci jàngu bi am nga sax siggi nga juróomi group yi de wax dëgg yàlla gëm naa ni bu fekkoon tey sénégalais yi deret jooju juróomi groupe yi yor moom la ñu yor li ñu bëgg dinañ ko réussir mais tel na pas foo cas faute ñoo ci bari ngañ dem ba nga baal ma de xëy na danga ko wax rek peut-être mooy li ma wax bëgg rek dajalewaat pas-pas yi xëy na bëggoo wax lii ma wax pour mel na kuy non non man li ma gëm man. mooy ay faux type ñoo bari ci réew mi kon nag bu kenn xaar ci kenn lenn lu fi waaye di xaar ci nit mënoo dab li fi Ousmane Sonko def Ousmane Sonko tey askan bi seetaan na ba mu ngay dund fee muy dund am na ñu naan la moo tax booba léegi waxul lu muy wax Ousmane Sonko daam lu mu wax ak kenn Ousmane Sonko jaanam wàcc na fa mu toog nii yal na ko yàlla defal jàmm yal na ko yàlla dolli barke yal na ko yàlla dolli sutura yal na ko yàlla dolli taxaw est-ce que ñun mérito nañu Ousmane sonk foofu kay la problème bi nekk mais Ousmane Sonko amatul lu muy wax pour sénégalais yi wàccoon ak sénégalais yi mbaa xam ay kàddoom yu rafet yiwam ngoram moo tax toogul am nu mu waxee nde kon noonu lay def mais gis nga la mu wax doy na mooy dafa ni sénégalais yi su ngeen nangoo seetaan waa ji ba mu xëy xañ ma élection yi ma xam ni loolu la yàlla tudd ci man ma muñ loo ko yàlla junj la loola sénégalais bu mu gàccaalul rek dootoo am gàcce ci kaw suuf fanu gudd ànd ak wér sutura ak barke jàmmi àdduna ak àllaaxira yan nañ ko yàlla bari defal ba beneen yoon incha allah